Euh, avant même sa campagne tout le monde sait que bon j'ai toujours appelé à la sérénité que ñi ñu ak sang ñu honnêtement moom toujours tay ji bi aussi gis wax ni bon dina am après vote un jour après le vote donc ce n'est pas la peine que vraiment ñu dugg ci yoo xam violence tant verbal que physique bon même la violence comportementale aussi nañ ko bàyyi mu dem donc li nga xam ne moom moo fi xew ñun ñëpp benn lañu tey jii dañuy laaj askan bi rek kan ngeen bëgg mu togal leen fi donc man damay oote ñëpp ak dal oote ñëpp ñu ànd ak discipline pour que ñu voté ni muy defee nii nag am jafé jafe parce que euh man bima duggé duggee di vote rek digënté bi xamna war na fa def 7 minutes alors je pense que ne bu fait minutes les dons. donc beaucoup calculer par exemple euh, pas la moitié la moitié d'un blé de bord c'est 250. mais si les 200 200, 200 de 200 par 7 minutes tu verras c'est combien alors quand tu divises par 60, tu auras le nombre d'heures alors donc à 18 heures déjà il y aura pas il y aura à peine 200 personnes qui vont voter voilà par bureau de vote donc li ñuy constaté mooy euh, diggante ñi bindu ak ñi bëggoon voter ak ñi voter digënté bi dina yaatu lool ba nga xamné ne lu ñu bëggoon ci taux de participation defe na né duñ ko mëna am. donc euh, solution bi ñu doon nak moy euh ñi nga xam ne ñooy président bureau de vote bi ñu ñu wax votant bi ne ko boo jëlee carte rek baax parce que bo jëlé carte on garde toujours le secret du vote kenn du xam ñent yoy ban nga ci jël donc loolu aussi on a ko wax ndax mu gën mais ni mu demee trois rangs département ville commune nga avons a dem def aller retour defar euh, aller retour je pense que c'est loolu honnêtement bu je pense que par expérience ni wote du bari. sama xel de dal quoi bon, àdduna man à chaque fois euh, de par nature ça, yi ma yeewoo sama xel dans n'importe quelle entreprise à fortiori mu nekk ci affaire élection. donc ñu ngi ñaan yàlla mi joxe ndam yàlla ñu yàlla jox ndam di encourager ñëpp tous les autres acteurs parce que ici à Rufus vraiment campagne bi fi am ren personne n'a démérité yàlla nañu yàlla defal jàmm rek ba ni mu defee nii ni mu commencé ni mu jeexee noonu